Ici studio King FM Midi Culture alaikum. Midi Culture. ciment bi yok nañ ko togn bi kon legui tay euh, ku koy jënd faaw nga doli ci junni ci lamu doon jar momar ndaw mi jiti asko sen ne kon andul ci lu ni mel tay it faaw nguur gi génne ci parété fekk bobu kon secrétaire général aussi sas di mbalo jatiam mi ngi doon amal ap némé ku ci sigi jor tax kon muy ñaawlu akay ba ya ci l'hôpital yak namu newé sagar wey di xéñ ci digënté say sak direction bu sesti juroom fuk ak ñaari attestation lañ wax mom lañu jébal ay doomu bene reportage bi tay ñuy waxtane kon déguerpissement bi ak kon fi ci nguur gi tollu ak kon ni ko jaaykatu xar yi ñëwee sal fañé topandi gi ci biir midiculture li mbokk ak leneen buñ ci noppé dinañ ci bolé néni ponku ba ci biti rew tagat yaram soga dugg ci patch bi nu jaglé la dak ciosan mu gën ci fës kon orchestra baobab ak dayo bi mu lambo abdourahman sow ñu gën ko xam kon ci ah, sadik style pour la soose gan gi ak li yene kay xey tay moy bural midiculture ñu ñaanalante Daouda Gueye mo nekk ci machine bi midiculture

Mamour Ndao nag fi mu nekk nii li ma bëgg rek moom moo di état bi daal di génne ab arrêté ñu teewlu ko ci micro wu ki nga fet même bu ñu yokkee cinq mille francs yooyu waruñ koo waruñ koo jot ndax tey ji am na ñoo xam ne ñu jaayee ay tonne ciment ay soixante trois mille soixante quatre mille euh, te fekk na prix yooyu du prix yi nga xam ne moom la prix officiel yi wax ndax prix officiel yu ciment yi am na yoo xam ne cinquante quatre mille la doon jar yi cinquante mille donc bu dee da ngaa jël bi gën a cher ci ciment yi muy cinquante huit mille boo ci tegoon sax cinq mille franc huit gis ngeen actuellement am na ñoo xam ne ñu bu ne na mais li nga xam ne daal moo am ba am mooy officiellement bu fekkee cinq mille franc lañ yokk ciment bi gën a gën a gën a gën a cher léegi nag ñun li ñuy interpeller état bi mooy nañ fexe ba arrêté am su arrêté amul yokk am prix yi nga xamante ne mooy prix ciment bi benn arrêté moo ko fixé woon au mois de juin kon ab tant que arrêté bu bees génnul kenn amul droit yokk si. loolu tamit c'est très important. mu nekkoon kàddu yi Momar Ndaw mi jiite ASCOSEN di uh, kon kuréel guy uh, làmboo way jëfandikukat yi fii nii ci réew ma uh, Sénégal ñu woyal wax ci leneen rawatina wàllum wér-gi-yaram ak secrétaire généralu SUTSAS mi naqarlu kon ñàkkum wala sax wàññitek ak yi foofee ca l'hôpital yi nekk ca Ziguinchor mu nekk rek hôpital régional bi waaye itamit hôpital de la Paix ba féete ca foofu kii di Ambalo Dia Thiam nag mi ngi dal di xamle ni war nañu daal di xoolaat bu baax yile hôpital ab mission rek la Khadija ci micro André Seck. muy ñàkk wax hôpital hôpital de la paix hôpital régional de Ziguinchor. Nenañu ci sen kayit yi. que pour li ñuy wax régulation manam bo bëggé jëlé malade ci ben gox yob ko hôpital da nga wara a téléphoné mais saa ñu woté ñaara ñu leen amuñu place. Mo hôpital régional amul place place yi ko wañi moy bloc opératoire bi fo mu nekkoon mënatu fo nekk parce que ndox yi infiltré bâtiment BSB bu màgget bi yëpp amay jafé-jafé donc place yi manqué fa hôpital de la paix tànnewu ko lu bari munoo am malade nak mu nek centre de santé nga war ko yóbbu fi nga xamni fofu nga gëna yaakaaré ñu sowee ko wala ñu mën mu war a tane ñun la fofu amul place do fa ñëw té fa mu nek aussi ñongul lu mu wara a parce que bi Bignona dafa mérité hôpital de niveau 1 un xoolal bi Bignona lu mu toll te loolu région bi mérité wul loolu donc ñi fi nekk di saytu mbirum wér yaram bi nañu liwanti lijjanti mbirum wér-gu-yaram enoo lijjanti leneen lu nga xam ni ça n'a rien voir ak ñi nga xam ni ñooy liggéey guddi ak bëccëg. ci xeex yooyu nag am na benn bu nga xam ni moom moo gën a tembare mooy affectation yi am jululu

formas mu nekkoon kàddu yu mbaalo ja Thiam jiite sas di syndicat bu uh, ëmb kon liggéeykat yu nekk ci wàllum uh, wér yaram ngeen di wéy di déglu mi di Culture ci rajo King FM di moo jot ba tegal ñeenti simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. mu mel ni kon coow judduwaat na ci diggante SAES ak CESTI. ba tax na rek ab délivrance boo xamante ni ci lu tollook juróom fukk ak ñaari attestation ca centre d'étude des sciences et techniques de l'information di CESTI la nu daal di jox ay uh, doomu bene tax rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa SAES di syndicat autonome de l'enseignement supérieur nag di ñaawlu ba tax na rek ñu daal di xam le ni dañu daal di euh, violer règle yi waaye itamit rek di naqarlu ñàkk waxtaan bi nga xamante ni diresti euh, directrice bu sisti euh, nag du ko waxtaan ak ñoom ba tax na rek waa SAES di xam le ni xëy na sax ñu daal di porter plainte kanamu procureur de la république ngir mbir yi nag daal di leer umu hakim waaj ginnaaw juróom fukk ak ñaar attestation yu ñu jox ay ndaw béninois syndicat autonome dans l' enseignement supérieur SAES e section bu sesti dem ci yoon bu ñu sukkandikoo ca SAES e ka jiite centre d' étude des sciences et techniques de l' information doxalul li du yoon ci délivrance su attestation yooyule ñi xamle ba tey ne salle Traoré di directrice su CESTI dafa joxe attestation yi le waane waxtaanu ci benn yoon ak ñi jiite comité pédagogique ba te loolee violation règle ya ñu tëral la ci institut ba syndicat bi jotna bind ab lettre ouverte jagleel ko président bu bene Patrice Talon ñu ci xamle ne dinañu déposer ab plainte ci procureur de la république ngir amal ab l'enquête te tamit dinañu saisir cour suprême ngir mu nénal décision bu directrice bi jël syndicat bi bokku ci lañuy tout mal. directrice sesti CESTI bañ gi mu bañ siwal notu étudiant yi ak fa mu sukkandiku ngir joxe attestation yi le waaye it ñukoy koy tuumaal ba ne dafa bëggoon nepp neppal mbir mi le SAES di xam xamle ne filek ay bés dinañu amal ab daje ak taskatu xibaar yi ngir indi ay leeral ci mbir mi mile Umu Hakim waa ceeg si nanu kon ci reportage bi tey ñu jaglele ko tolluwaayu tabaski ak opération déguerpissement bi nguur gi dooroon. nguur gi nag dooroon na li ni mel ngir rek daal di seetal li nga xamante ne moom mooy di voie publique yi waaye jamono ji daal di nañu seetluwaat ak tabaski bi nit ñi dañu fay daal di génn rek def fa seen mbaaru xar di jaay donte rek li ñu moom moo di ñeent fukki point de vente foo xamante ne rek war nañ faa a ne rek moom moo di xaru tabaski kii di préfet bu Dakar nag daal dinay dellu siwaat ci biir décision waaye itam joxe xalaatam ci jaaykatu euh, xar yi reportage bi Demati Dia moo ko ji bu dee am na benn bëgg-bëgg bu kilifa yépp bokk di ko wërandoo xaru tabaski la lile nag jafewul a gis ci mbeddu ndakaaru yi ndax koñ boo romb gis ñu exposé leen fa donte sax 40 points de vente dong la ñu autorisé woon préfet bu ndakaaru dikkaat ci ndogal bi ak li ko sabab Alioune ba wàllu du Sénégal da ko subventionné dafay teg jàppale également ci toilette ak commodité mais malheureusement ñëpp ñooy dem ci point de fa jaay seen i xaar di nga gis benn waaye boo xam jënd ay xaram ñeent daal ubbi ci koñ contrôle boobu nga xam nag mooy contrôle occupation espace dëgg la préfet mooy jiite département mais ñi war a jiitu d'abord mooy population yi seen bopp parce que état mënul def li situation bu déplorable la boo xam ni rafetul ba passé tabax ngeen ni toll ci liggéey lépp nag sotteegul mais am nañ yaakaar bi si ñëpp jàppee yàlla mën a def ñu ci géttam lañu ko fekk muy waxaale ak client waaye mujjee wu ñu juboo ci prix mu jàpp ne jaayee ci point de vente yi ñu autorisé mooy li gën teg noonu noonu laa gën ngeen yàpp doog teg foofu non non joxoon dara wax yàlla joxoon dara sax aussi gendarme yi fa ñëw ah, yàlla baax a baax <laughs> ñu si yëngatu baax gars ñëwaguna ah, dañuy waxaale yi rek bàyyi xam ma bi beneen jaaykatu xara ngi nii waaye bi yoon bu teggi ndogalu préfet bi El Hadji lii moo ko waral fii moom espace bareetu fi boo gisee ñu teg nii xar yi mboolem espace yi nga xam ne ñoo am fii teg xar ban daw fi nekk te presque tabax nañ ko mu jeex bu passé foofu Wakaam fii à part mbedd yi gis mooy fu ñu war a a teg xar bu la neexee nag nga ci biir Wakaam amu fi du yoon mais opération tabaski xanaa état bi war nañu mën a permettre nit ñi ñu romboon yeew xar boo fi romboon doo fi gis kenn ku teg fi ay bagage mais boo gisee ñi di teg nii pour événement tabaski moo tax te beneen espace bu amoon foo xam ne comme foraay boo xam ne ñëpp dinañ fi mën ni kii ay xar bon doo gis baas fii ci mbedd ñëpp xam ne fii mooy dara lu wakaam ñëpp di fa dem ji jëndi ay xar ay bés yu néew des ngir jullit yi màggal feetub tabaski ñu bare di sàkku buñ ca noppee ñu déménager gétt yi ñu installé woon ci mbedd yi Ndeye Mati mi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili ci aéroport international Blaise Diagne pàcc boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou nuyu naa kat internet ak eh, auditeurs yu King FM. maa ngi lay fay Kumba euh, ba ñu tàmbali ko ca Égypte ab accident nag moo fa daal di am lu tollook fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama daal di ci ñàkk seen bakkan gën ngaa néew kon fukk ak ñeenti doomu aadama ñàkk na seen bakkan accident bi am ca Caire nee nañu nag ab oto bu doon daw ay xil yu bari moom moo daal di mbëkk yeneen oto kon fanweer yeneen ñi doomu aadama jëlee nañu ay gaañu gaañu ci boobu lee accident ba tey bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji yor wàllu wér-gi-yaram ca dëkk ba accident bi mu ngi am nee nañ ci fajaru tey oto bi kon lim doon daw moom moo bëri ba mu mbëkk mbëkk yeneen ñetti oto yu fa nekkoon ca corniche bu niit la xewee euh, ba tax nag après explosion moom moo ci daal di topp réseaux sociaux yi sax boo ko xoolee ñu ngi ci euh, publier ay images yoo xam ne ay oto bu yu lakk ba jeex ak ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi leen di évacuer di leen rawale ca opito yi na ca dëkk ba euh, procureur général bu dëkk ba nag daal dinay sàkku ñu ubbi ab enquête ci mbir mi. xeex wàllum terrorisme foofu la ca Somalie daal ñu faat ñaari Chebab. jàpp nañ ne ñoom ñaar ñooñu ñoom ñoo faatoon kon fukk ak ñetti doomu aadama ñoom ñaari militant yi bokk ci euh, euh, groupe islamiste yu Chebab yi nekk foofu ca euh, Somalie ñoom nag kon mujj nañ leen faat ca Mogadiscio dañ leen exécuté kon ñoom nag par fusillade lañ leen faate bu ñu sukkandiku ki ci ki nga xam ne moo joxe xibaar bi di Hassan Ali Nour moom mi président bu tribunal militaire bu Somalie ñaari doomu aadama yooyu ci fàttali nag ci seeni procès ñoom nangu woon nañ ne tuuma yi ñu leen di teg ñoom ñoo ko defoon muy acte acte terroriste ak meurtre ca décembre 2018 eh, bi ñi nga xam ne moom la ñu weesu nag ci la double attentat boobu amoon ca dëkk ba ba faat fukk ak ñetti doomu aadama yooyu foofe ca Mogadiscio di capitalu réew ma double attentat boobu kon ba mu amee rek ñoom islamiste yu Chebab yi dañu génnoon wax ne ñoom ñoo ko def ci Nigeria, benn opposant nag daal di nañu ko teg loxo li ko waral rek moom moo di da doon woote révolution mu nekkoon ab candidat kon ci présidentiel ñu weesu ci février la woon nekkite directeur de publication bu benn site d'information nee nañ nag tàmmul di raay raayal euh, pouvoir ba maanaam dafa tàmm heure bu àddoo rek di dal ci seen kaw moom nag jàpp nañ ko ndax nee nañ dafa woote révolution ca Nigeria, euh, te tey ji sax moom Omoyele sowor dafa candidat la woon euh, moom moo nekkoon candidat bu congrès d'action africain ci élection publication yooyu sax directeur publication bu Sahara Reports nee nañ nag dafa woote woon ab marché tey ji juróomi fan ci weeru août foofe ci Abuja ci ab tweet boo xam ne publier woon na ko ci àjjuma ji ñu génn. ñu jeexale ko ci Soudan ay défi yoo xamante ne rek mi ngi jëm ci wàllum transition. muy accord global bu ñeel transition ba kon ñu waxtaanee ko euh, samedi bi ñu weesu ba dimanche démb kon ñu daal di ci sëgg ñoom euh, militaire ak civil yi ne ca dëkk ba waxtaan nañ ba déggoo kon euh, fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août bi dinañu signé boobu. les accords nee nañu accord ba nag bu équilibré la maanaam yemale am na ca ndax pàcc bu rëy jox nañ ko ñi di pouvoir civil ba waaye nag yoon bi euh, kat ñu ne gudd na lool ndax eggaguñu ndax euh, xaaxaam yi dafa bari kon transition bi ñetti autorité ñoom ñoo ko fas yéene encadré bi ci njëkk di ab euh, conseil souverain boo xam ne fukki membre ak benn ñoom ñoo ci fas yéene nekk waaye juróom ya dong ñoom ñooy nekk ay militaire juróom benn ya ay civil la ñuy doon premier ministre la boo xam ne ba tey nag ñi di civil ñoom ñoo koy tabb ak parlement bi nga xam ne bu ñu déggoowee ba xaatim lii di accord ba nag euh, ñetti weer yi ca tegu ci la ñuy daal di taxawal boobule parlement kon kat yi fii la ñuy yem tey ci xibaari biti réew yi. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. gannaaw faram-fàcce xibaaru biti réew yeeg Kumba Ba dañuy dalal Papa ma jaxate saar ngir tàggat yaram Pape maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Kati Ndiaye ak euh, auditeurs yu rajo King FM. maa ngi lay fay bu baax Papa Ndiakhaté Papa Ama Diakhaté Sarr ñu tàmbali ak euh, basketball tournoi wu Dakar euh, Sénégal fi mu nekk nii suñu gayndee jigéen ñi li ñu bëgg rek moom moo daal di am seen ñetteelu victoire. ñetteelu victoire bu ñuy teglee loolu gaynde yu jigéen yi bëgg ginnaaw ba ñu daanee Côte d'Ivoire démb ñu daan Angola mi nga xam ne bokk na ci favori ci afro basket bi 88 69 ñom gaynde yu jigéen yi euh, di amal seen ñetteli jongante ci tournoi bi nga xam euh, dañu koy amal ngir waajal afro basket euh, Dakar 2019 jongante bi nak tay ji ci altiné ji lay doon moy seen jongante bu mujj digënté ak Égypte lay doon ba tax nak gaynde yi bëgg ci am ndam ngir gëna a am confiance ta tambalik compétition bi di afro basket bi fukki fan ci wëru août gi ñu jëm ci Dakar Arena bu Diamniadio volleyball la ñuy ex international bi la di euh, Fatou djouk nak euh, mu ngi organiser ay tournoi fofu le ci Rufisque ngir jappale ndaw ñi. lay amal mum Fatou djouk la mu nam nak moy gëna mëna ñongal discipline bi euh, di volleyball ci tout tanki yi jaarale ko ci ay match yo xamné dañu koy amal ci vacances bu né at mu ne moom mi capitaine bu gaynde yu Sénégal yi nek jamono ji ci Racing Club bu Cannes France bëgg organiser tournoi bi légui ñetti wër yu ne waaye nak. faw mu am ci ak ndimbal dañu teewlu ay kàddu Fatou

170 gosses yu fa nekkoon ñu ngi fa nekkoon toute la journée heure añ bi sax dañ leen di woo añ ñuy bañ gars yi di jooy sama yaram da doon daw vraiment xale yi li leen occupé rek la ñuy laaj donc maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ si jàpp ñu jàpp ci def naa ko le 27 bi passé def naa bi démb def naa benn tamit mais voilà man bu ma si amee si jàpp vraiment il suffit ma woo volleyeurs yi en même un mois mën na nekk donc vraiment bëgg naa lu nekk loo xam day pérenniser dans l'année mu bañ a nekk que été ma fi nekkee loolu daal waaw sama mbébét la mu nekkoon ay kàddu Fatou Diop nekkoon euh, international bu volleyball bu euh, Sénégal. papa ñu jeexaleeg wàllum football euh, mercato kii di Edouard Mendy dina signé foofule ca Rennes France. moom gardien de but bu gaynde yu Sénégal yu football yi def ab saison bu mucc ayib daaw ak clubam bii di Reims ca Ligue 1 bu France moom nag tey wala ëllëg lanu koy xaar foofe ca club breton bi di Stade Rennais ngir mu xaatim fa ab contrat ñeenti at ginnaaw ba mu defee li nga xam ne moo di visite médicale am Rennes fas yéene jongante ren ji eh, lii di Ligue Europa ni ki daaw eh, mu doon war a doon nag gulet ci doomu Sénégal bi bu fa signé Edouard Mendy nag moom dina fa fekk ñaari doomi naataangoom ci eh, équipe national bu senegal mu di Ismaïla Sarr ak Mbaye Niang ñi nga xam ne sax bokkoon ak ñoom Coupe d'Afrique bi ñu weesu ca Égypte fii la ñu yemale xibaaru tàggat yi cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax papa ma jaxate saar xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy euh, tàmbalee wax ci orchestre Baobab. mu nekk rek benn groupe goo xamante ne yàgg naa fecculoo génération quitte génération orchestre Baobab nag euh, daal dinay jaxase ay sonorité yu bëri ngir rek gën di bëgg gën a bégal ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy di seeni fans mu xàkki mu aj nag euh, moom moo ñu découvrir loo bile groupe. du naa ko mën a juy la aduna la ña ëpp ci ñoom jóge ca Star Bands orchestra Bob daan faral di yëngu bu baax ca club Bob moo ne foofu sax le tour bi jóge Ablaye Mbuub Balla Sidibé Ridi Gomis Barthélemy Atisso Ndiouga Dieng Assane Mbuub Issa Sissoko Medoune Diallo orchestra Baobab boole ay waaso yu bëri tax ba daan def musique bu varié. ci atum 1985 orchestra Bob siw lool ci Afrique de l'Ouest ñu enregistré lu toll ci 15 albums particularité groupe du mélange jazz musique africaine ak rythme cubain ba ñuy tax ba génération yépp mën leen déglu doomu Mariama Demon Jirim nijai muhamadou Bamba bokk ci seen way yi orchestra Baobab nek abdara daara bu tàggat ay woykat yu Mapenda Sek, Assane Mboup Cheikh Ndigal Lo ak orchestra Baobab sur scène di diversité musicale ba tax waaso yu nekk ci réew mi yëpp di leen umu hakim ci keneen ku ñuy waxtaane ci biile jotaayu xibaar moo di Abdourahmane Sow ñu gën ko xam ci turu euh, Sadik Style mu nekk rek benn rappeur boo xamante ne ma nga dëkk foofu la ca Malika daal dinay dellu si waat ci génnub premier EP wam ak Penda Badji Abdourahmane Sow la tudd ñu ngi juddu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ca Malika bëgg rap di ci dox tax ba mu tuddee boppam sa Sadik Style muy turu artiste am tàmbali way bi nag atum 2016. naka noonu mu ñuy xamal naka la ay inspiration di ñëwee ci moom ba muy mun di bind ay textes yu mucc ayib. laa commencé la sama premier single bi laa def sama premier single. Euh, sa lépp laay inspiré ni moom ba muy tàmbali way nag daanaka ci ay référence am bokkoon na ci kii di rappeur bi di Canabasse jamono di dox mu dem ba bëgg am li di propre style am waral mu jot a bokk ci ay concert ak ay concours yu am solo ngir ñu mën ko ci ràññee ci concours surtout waati Tiwuru bi teen bi di organiser euh, Thiaroye première fois bi euh, dem nañ ba demi-finale deuxième euh, deuxième fois bi dem nañ ba finale en même temps tamit

eh, wireless nigga, yo pare cool. Yo, eh, eh, MC comme bërë Nigga, nigga, nigga, sa MC comme album koy tooñ. ndaw la mi ngi ci milliers rap di ci di ci Penda Midi ñu ci le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale ak Laba mu nekkoon rek benn woykatu salsa ñu ko doon woowee le roi de la salsa wala sax el maestro bokkoon na ci njëkk ñi njëkk a am disque d'or africain mi ngi génn àddina bi mu amee juróom benn fukki ak ñeent lii di musique salsa ma ngay continuer rek di daal di gën a fecc loo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di mélomani Fatou Sow la Socé woykatu salsa bu mag bi won ñuko roi de la salsa el maestro mu fekk baax ci dëkk buñ Tchagambi, first ci 1943 mo waral sax ñukoy wowe sénégambien bi kuni musique salsa sam ni ci j'ai un autre dans mon sac donc la musique est est-ce que vous comprenez bien c'est une musique immortale. doomu sénégambien bi salsa bi Donon, doonoon ku disque d'or afro-cubain ci atum 1960 moom nag ca capitalu Gambie ba fa la carrière am ak African Jazz Band ci atum 1963 jàpp 1964 ci atum 1968 Nak, ci la Sénégal dal di nekk ci woy ci Star Band ak Dexter Johnson gin

xama ans def na ko ci carrière am lu ëpp fukki titre ak ñaar itam bàyyil na ko fi askan wi Laba Badara Socé doon ku ñu xàññee ci musique salsa mu nekkoon ku defoon itam ay jéego yu am solo ci wàllu woowu mu dëddu àdduna ci bésu 20 septembre 2007 àdduna bépp di ko jooy ba tey ndax nekkoon na ku yóbbu musique salsa fépp ci àdduna mu nekkoon kon Fatou Sow doon nu defal nataalub euh, lab soose midi culture ñu jàll ci gan gi. midi culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal woykat le di Léon Bassène. moom nag euh, mu ngi juddoo foofule ca Casamance waaye nag jamono ji ma nga fete ca New York fi mu nekk nag mu ngi ñëw Dakar ngir rek ay activité culturelle waaye tamit ab tournage clip mi ngi sekk ak waxtaan ak papa ma jaxate sax. Ah, Léon Bassène maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu bi merci beaucoup si invitation bi. tey yaay sunu gan ci midi culture Léon artiste musicien ngay def euh, R&B afropop euh, nek New York alors comment ça se passe euh, là-bas à New York ak liguey bi. ça se passe super bien et ça, am na foule bi nga xamantene ne may mooy ci de près quoi donc mangi ngi def lu dul xam génne ay projets nga xamantene ne da leen len di beglo et aussi di génn yaatal sama public so lolu bok na ci li ma génn indi fi aussi au Sénégal quoi si sama base fuma ma commencé musique bi. entre temps toog nañ lu yàgg peut-être fii Sénégal dañ lay gis lu lu bari pourquoi distance boobu nga jël ak Sénégal. so man fii laa juddoo màggee fii xam Ziguinchor laa juddoo après ma formé un groupe euh, bu tuddoon Suprême Kaddu Mag avec euh, Ombrezane sama gars bi nga xamante ne mooy dafay affaire yu grave fii Sénégal so def nañu groupe boobu Suprême Kaddu Mag on a eu à tourner un peu ici à Dakar dafay affaire yu nice et après j'ai eu l'opportunité madame aux États-Unis donc euh, arrivé là-bas ma recommencé tout à zéro s'il a changé un peu style def ba tax na ma maa ngi fii instant yi dama dellu pour ñëw xam euh, acquérir sama base bi fii Sénégal fu ma commencé quoi ñëw bu gàtt la mais profiter naa si pour def si euh, maximum de tour média yi. sa retour bi euh, nga dikkaat Sénégal gàtt na ga mais lan lan nga indaale. so li ma indaale bëri na <laughs> en fait dañ ma fi invité pour événement socio-culturel donc bi nga xamante ne bu ma yitteel carrément quoi man la ñu invité comme invité d'honneur donc événement boobu dafa nek événement socioculturel bi nga xamantene dañuy collecter ay fonds pour jàppale ci quelques villages yi nga xamantene ne ñu dañu am besoin quoi mo gën tax ma ñëw mais euh, ci durée bu gàtt bobu mu profiter ci pour euh, tourner un clip pour sama nouvelle euh, vidéo bu may waaj génne mo ngi tudd Isabella bu ma def ak DJ Awadi bu may saluer de passage ak sama grand déggati le PBS crew bi yëpp ak ñoom maçon maa ngi leen di saluer le passage gars yi cool la ñu ah, so tourné naa clip bi ak moom et ñoo ngi liggéey ci clip bi dina génn ci temps yi quoi so loolu bokk na ci projet yi ma indi fii yaa ngi nekk New York euh, de loin naka ngay apprécier évolution musique sénégalaise euh? je vois qu'il y a plein de talents ici au Sénégal xam musique bi nice na trop gars yi ñoo ngi affaire yu nice nice nice ah, mais man lu may euh, conseil gars yi mooy xam nga ñu génn tijji frontières yi quoi you know what I mean parce que euh, talent yi bëri na mais en général on voit que xam nga des si biir dëkk bi day nekk lu local quoi mais euh, Sénégal toll na ci niveau bi nga xamante ne mën nañu gën a tooj affaire yi fu ñu nekk ñuy wax ci Sénégal bien que Akon yóbbu na affaire yi ci benn niveau mais il y a encore beaucoup plus que Akon ñu fi nekk ñu mën a yóbbu affaire yi reggae bi ay temps dañ ko doon wax à fond parce que lan jamaïcain dañuy boole seen doole def lu ñu mën xam jaay ko monde bi quoi ba tax na ba booy waxee reggae rek gars dans le monde dañ retrouvé ñu jógee ci bi ci même chose la Afrique dem xam le le marché inter muy dominer marché international loo ko mais niveau boobu et Nigériens monopoliser marché pourquoi pas le Sénégal talent bi so nañu ñu carrément ñu euh, même si euh, afro mais ñu def ko ak suñu Sénégal en place quoi bu ñuy wax musique euh, africaine ñuy tout de Sénégal quoi sans sans pour autant di xalaat lu yàgg quoi. Léon bassane ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf waay merci ci invitation bi ça fait vraiment plaisir. jaajëf ya ne woon tey sunu gan Culture. ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow it Papa Madiakhaté Sarr ñu jàll ci ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck li si yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck Christophe Bigot mi nekkoon ambassadeuru France ci réewum Sénégal mission am jeex na ba tax mu xëy amee la soleil national di ci def ab taxaw seetlu akub xayma ci diiru pu li mu fi def Christophe Bigot ne Sénégal daal réew la moo xam ne gàcce ngaalaama ñoom ndax nag ñoom waa réew mu France jëmbat nañ fi lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukki entreprise yu ñaari junni doomu réewum Sénégal di liggéey mu yokku ci ne askanu Sénégal nanu te it ubbeeku nanu kaaraange ga nekk ca diwaanu Casamance tubaab bi nee na gis na ci jéego yu jéggi dayo moo taxit mu ni ci diggante atum 2014 jàpp 2019 réewum France dafa ñett te ndimbalam ci PSE di plan Sénégal émergent ndax nag dayo bi dem na ba benn milliard bu topp juróomi téeméeri million ci xaalisu euro di 1,5 milliard d'euro 35 milliards la nguurug Sénégal jébbal waa Sénélec ngir coupure bañ a am waaye te courant bi doy xibaar baa ngi ci xaru njëkku libération yéenekaay bi yokku marché régional itam ba ci salaire yi nguur gi fay nanu lépp li fayagul mooy coowul pétrole ak gaz les éco yéene ne plainte bi congrès de la renaissance démocratique tegoon ci kaw Aliou Sall ak Franck Timis doyen des juges jébbal na dossier ba procureur journal bi ne juge Samba Sall jamono ji réquisition Serigne Bassirou Gueye rek lay xaar ngir ubbi information ba mën a lëñ mbët mbirum Franck Timis ak Aliou Sall moom Aliou Sall daanaka yéene yu nu xëyandool ñëpp xëy di nu xamal gàcce ga ko dal démb ca géejawaay ga tàntal bu doon am ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye te moom Aliou Sall mu nekkoon pare ba dafa dugg si rek supporters yi ñaari équipe ya doon jongante teeroo kooku Aliou Sall sunuy milliards yi Ousmane Sonko tuddoon Mamour Diallo Dakar Times xëy na bind ca lu bëri te yees ca mbir ma boole ko xëy fesal ca waxatam nataalu Mamour Diallo ak Tahirou Sarr Sud Quotidien lu jëm ca mbir mu ni mel ak commission d'enquête parlementaire ba nu ca taxawal te Ousmane Sonko ne àndu ca yéenekaay ne na Assane Dioma Ndiaye tamit dëggal na Sonko it mbir ma doyu ko li doy waar te jéggi dayo moom la vox populi ak l'observateur xëy fesal seenu xët yéeni kaay bi 15 angle corniche bi ne mbir ma ca France la xew benn couple bu doon sëy batas Fatou Sall ak Emmanuel lan tudd moom Emmanuel seen ñaari doom la faat kenn ka góor la doon Ibrahima toll ci juróom-ñaari at ka ca des jigéen la doon sëy na bu toll ci juróomi at xibaar bi bi ko seen yaay déggee dafa traumatisé ba nu rawale ko urgence ñeneen ñi nar a dem urgence ñoo ngi ci xët njëkku lése ko ubbi kaay bi journal bi ne Ibrahima Ndiaye jaamuwaay yi di doom yu taqaloo atum 2016 lan juddu woon tudd Marème ak Ndeye Ndiaye li ci doy waar journal bi nee na fi mu toll nii faaw ñu opéré leen ngir taqale leen te bu boobaa kenn ki mooy rëcc ka ca des faaw mu ñàkk bakkanam loolee nag moo sabab seen papa jamono ji boppam tëju ràpp la def ki boppam tëju ràpp mooy oustaz Tayib Socé jamono ji moo nga ca kaso bu rëbës Mame Makhtar Gueye nekk président Jamra ci réew mi quotidien ne faaw ñu dimbali oustaz bi ndax nag tàmbali naa ñàkk kartan feetuk tabaski tax enquête yéen kaay xëy def enquête bu yaatu ca daral ba nekk ca sewexaay di dëkk bu nekk ca commune bu Ngunjaan waaye nag la mu fa gis moo di jaaykati xar yu jaaxle ndax nag nee nañ sàcc ya ñoo leen sonal te it nee nañ dañu ñëw léemu ngir jaay seeni xar sàcc yeet léemu ñëw sàcc seeni xar mu nekkoon naa li ci yéen kaay yeeg Serigne Saliou Seck mu ngi noonu kon kat yi dañuy jeexale jotaayu Midi Culture ci rajo King FM ak wàllu musique wàllu musique la ñu koy tëjee tey nag woy bi leen jagleel moo di harmoniser bu Sisa

fonte leen saa fonte leen ngir jàmm ñëw ci mi ngi noonu kon mbokk yi foofee la ñuy yam ak yéen ci midi culture yamoo itam ak lin nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yi ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci midi culture cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon kon ci euh, xarale gi euh, production Kaderlo digital Yacine Pouy léegi